aja rang muy suus rang muy béti béti ñu jayi jayi fañax fañax yi ba ndaayana ñëw fekk la grand champion Ongué Ndiaye ndaanaan lu mag li nee naa la bëri naa génération ba gis ngeen ko ren mu wàcc jaay booy yi wan leen ni leen maa leen dàq bëre maa leen ëpp xam-xam ñela ju leen ñoom ñëpp raafal raatale leen xam nga mooy loolu waaye tey nag sama caméraman dama am caméraman bu bees ah bakku a ah borom sawan <laughs> aso nekkoo fi bakku moo la remplacé ah maa ngi koy bëgg bu baax a baax moom aso donc l'infatigable l'ambassadeur de la paix ah borom sookoon kon nag dañuy bàyyi sa waay rek mu nuyoo ak askan wi ñu ngi lay ziare. waaw ñu ngi lay delloo ziar lu wér wér wér. bàyyi nga am jàmm. waaw lépp jaamu koñ sant yàlla bu wér. Eh, lépp tawféex. waaw lépp tawféex koñ. naka hivernal yi. waaw hivernal eh, tuuti tuuti rek. waaw da ngaa leer ma ah <laughs> leeruma de man may dem géej chaque naa leer. Ah. waaw ah saison bi est-ce xam nga ni temps bi bariwul mois quinze waaw waaw dëgg la waaye xam nga rek tom boo doonee borom soxna nii doo mën a hivernalu toog toppa entraînement rek te yor soxna da ngay boole géej gi daal di dóor ndànk-ndànk rek. Hmm. ba gënee jigéen rek après ñu arrêté géej gi quoi. Hmm. jublu si waaw. noonu la onge tey bu ñu doon dellusiwaat si wàllu làmbam jaar jaaram lan dañuy wax lu ko booleeg làmb. waaw man ma jaar jaaru làmb moom xanaa juddu fekk su may mag di béree rek ma ñëw topp si. Mm-hmm. waaw ma ñaari mag di béree. Mm-hmm. ma ñëw topp si ñoom ginnaaw. Mm-hmm. waaw muy kan muy uh, Moussa Ndiaye. ak Wës. waaw. noonu la demee. noonu la demee kon daa juddu fekk ngemb li si kër gi mu daal di koy jël. waaw dafa leer noonu la demee de waaw. tey Ongué bu ñu doon ñëwalaatal si ban génération la bokk ñan la bokkal génération lan la waaw génération waaw man làmba ji man nag xam nga tey man duma mag sax waaye tey dama teel a bëre teel a teel a dugg si bëre bi teel si am tuur loolu moo tax fi mu toll nii ñeneen ñi ancien ma jox sax eegu ma foofu quoi mm-hmm. waaye làmba yàlla baax na làmba yaa ngi suñu kanam quoi mm-hmm. dama teel a dugg si làmba mm-hmm. teel si ñëw forcé waaw sama mag sama mag bi ma lay wax nii dañu laan ànd làmba mu ne ba ñu fekkinte làmba ba ma fekke ko fexe ba fekke nu fekkinte poids am na boo xam ne noo daje demi final poids lourd ma ne ko pour mu bàyyi ma mu ne noo bàyyi ma campement fii gars yi ñoo nuy yoole sax parce que dañu tiiraasoon ba pare moom mu daje keneen ki man keneen ki gars yi na ñii ñoo bokk ndeex bàyyi ñebboole no après ma may nag noonu la demee. ni waaw moom ah non dafa daanu final nag. waaw te xam nga mbër yëpp am nañu handicapé am na tànk bii boo ko lalee kii du mën a bëre koo tànk bii mu laloon nag boobu man maa si gën a aaye. ma ne ko bàyyil ma dem mu ne ma bàyyil dina baax après kooku daan ko quoi. Mhm. waaw léegi loolu am na solo mais exactement moom ñan la bokkal génération yow yow Ongué Ndiaye a débuté mhm. ndax làmb du maas ak dabante la. ñoo xam ne ñoom nga bokkal génération bi ngay doog a jóg. waaw ñun ñooñu laay siis ñoo laan bérendoo laay siis bu campement. Mhm. ñoom ñoo ñoom Modou Ngingue bu Mbour ñoom Mbaye Thiané ñoo woon ñoom Baba Ndew yëpp gaaw yëpp dalante naa ñoom bëri naa ñoom. waaw ñoo ñoo génération quoi. ñoo ñu mhm. bu campement Fadiga. waaw Fadiga waaw sama <laughs> doomu ndey. nee am mbër. <laughs> Ah, am na mbër de. Ah. waaw ñoom Soleil nga fa ñoom Petit Soleil. Mhm. ah ñoom yeneen booy am nañu mbër de. Ah. waaw mais est si Laye Ciss moom am na xorom moom moom moom bandi la booy boobu <laughs> waaw. daanaka ñu ngi koy ziar bu baax a baax yaa moom nan la daan demee boo leen dajee si làmb. waaw laay moom bëri nañu bëri nañu bëri yu bëri nañu combat yu bëri de wax dëgg yàlla. Mm. waaw waaye xam nga léegi rek tey jii doo toog si télé bi di lim yow wax nit ki daan naa ko nii daan naa ko nii bëri nañu daal ay yoon daal. <laughs> man maa ko ëpp lu ma daan. <laughs> waaw. <laughs> laaj si ñu ngi koy jaar korom xorom moom xam naa ne moom si moom la baññeekoo waaw moom dafa saf xorom naturellement keroog rek dix litres yi tournoi dix litres yi moo ko rajaxe lépp lépp bi mu ñëwee ànd ak dama ni leen xaar leen ma bàyyi leen fii laaj si laa topp di filmer làmb ji yëpp ba mu jig indi ni ma waaye ki ngay filmer kum doon man ko xamoo ko waaye man xam naa ko ndax dafa am xorom naturellement mais tey jii nii yow ak euh, tey buñ jigee ñoom muñ muñ nga bu yéen yéen boo leen dajewaan si làmb tey nan la daan demee ay Moñing lay si ñoom Baba Ndaw génération boobu noonu. waaw bu ñu naan daje rek xanaa mbëkkante rek. Hmm. waaw Moñing tamit mbéycaane bëre nañ tamit ñaari yoon moom moo ma jëkk daan sax. Hmm. waaw après si laa ko dabu daan ko daanaat ko quoi hmm. su ma waay la nag maa ngi nuyu bu baax. noonu la demee. Moñing la. yoon lañu ñu dama dama daan. après ñu dajewaat ma génne ko attaque. Mm. Baba Ndaw tamit benn yoon la ñu ma daan ko quoi. Mm. éliminatoire drapeau chef de l' man dem naa si ñaata fois. Mm. est ce que du quatre. waaw quatre laa si dem jël jël ñaari yeneen ñaari troisième ñaari yëpp troisième place maa jël troisième bi quoi. waaw man Thiès. Thiès sa ñaar yi ma ko jëlee Thiès laa demee quoi. waaw après demaat naa nag fii. Euh, Tamba. Tamba waaw ah, dem naa Tamba beneen boo tamit maa troisième place bi jël waaw. Hmm. Ah. quatrième bi fan jël troisième place waaw. Euh, tey jii ban catégorie nga doon représenté. man instant boobu soixante quinze kilos laa doon waaw. Hmm. Hmm. yaa ngi ñenn yéen a doon bokk comme euh, euh, poule. waaw ñun poule yi am moom mbër yi waaw mbër yi ah. ni nga bokk ni équipe mais ñi nga xam pool bi ngay bokk am ni ñooy dajal ah, ay Fatick mhm. ay Diourbel yooyu yëpp ñoom seeti jaan ñaaw sax biri naa moom mhm. daan ko chef de l'état bo waaw bi woon Kaffrine waaw maa ko daan ko waaw mhm. ñoom Omar Jalañ ñooñu tamit ñëpp daan naa Omar Jalañ moom tamit Fatick laa ko daane woon final quoi waaw chef de l'état bi loolu am na solo ba tey mais tey ji ñu jékki-jékki ji sa waay toog benn instant bëri lan moo waraloon loolu. waa xanaa nekk si ma bopp rek di préparer quoi xam nga làmb moom dafa laaj préparer te xam nga ñu dëkk bi ñu dëkk nii amuñu jàppale. amuñu jàppale mbër inji bu ñu amoon jàppale bon heure bi dépassé nañu fii yëpp. Mhm. waaw tey jii boo nekkee boo boo demul géej daal pour ñoom doo nit. loolu moo ñu gën a sonal. waaw ay lébu lañ géej la ñu xam bi ñu juddoo ba léegi géej bëri la xam. Mhm. waaw waaye nit bu nekkee si dëkk mu doon mbër. Mhm. après dañ ko war a taxaw quoi jàppale ko. Mhm. waaw tey jii bu ñu la gisee demoo géej ñaari fan dañ lay toppa da nga fi nit ki mu ngi def nii mu ngi def nii te làmb entraînement bi mu laaj. mënul ànd ak dara boo ko defee da tooy fii billaahi làmb moom boo si buggee am da ngay liggéey lu metti dem jaakaarloo say morom. waaw force nga am benn temps bi ne waaye fii moom li yàlla xam doy na ko quoi. Mhm. waaye daal ñun daal ñu ngi si. waaw dina baax incha allah. mais Ongué mos naa def combat arène. man def naa sept combat arène. ñaata victoire. benn défaite laa am. benn défaite ah. yi kan ak kan nga ci dajal. ah ñoo ñi <laughs> fàtte naa leen di wax dëgg yàlla. waaw. mais combat yi fan la doon nekk. waaw am na am na Dakar am na Thiès am na campement tamit campement max Ousmane Law bi noo ko doon ko doon boo dëgg waaw bi dëgg hmm. waaw noonu bëree foofu noonu ma premier moom laa ko bëreel bëri door hmm. après am na gala boo xamante ne tamit Thiès la woon quoi hmm. aajuma laa ko jëloon bëri ko samedi bëri door dañ ma woo rek wax ma ko ma ne wax acca ma dem am si ñaari combat après gala bi nag dafa mujjee woon ko dañ ko arrêté woon quoi kii tëggoon làmba ji waaw waaw yéegul woon féeri naa tamit dem si yàlla ji Pape Louli tamit grand combat hmm. mbali ñu fële tropical quoi waaw sëñ Modou Niang moo ko tëggoon moo hmm. la demee kan moo la daan si aare Koña Koña Koña bu mag bi moo ma daan waaw moo la daan borom tent bu bi hmm. kooku moo ma daan jour combat l'an 2000 ah l'an kan la woon sax garaaw combat bi Bébé ba tey ba nga si jugee gars yi contacté waatuñ waxaatuñ dara. waaw ba léegi nii nii combat moom dama am problème am parce que yenn saa yi am na benn Fallou Ndiaye woo na ba Dakar ma dem waaye mbër moom ma proposé rek gars yi dañuy bañ quoi. waaw loolu moom mooy suñu car petit code bi. Mm-hmm. waaw te ndayaan fii moom am na temps yoo xamante ne nii moom mm-hmm. bu dëgër rek neexee petit code bi noo téye woon làmba ji mm-hmm. waaye ainsi nii loolu dañ na de waaw te ñii suñu ginnaaw nag ñoom ñoo wër a téye loolu am waaw am na solo mm-hmm. mais tamit buñ jugee foofu noonu yow ñoom uh, laay sis nga bokkaloon génération ñoom Baba ay ay moññing bu mbuur Mbay Caane maa ngi koy bu baax moom Mbay Caane noonu daa ko ma ne ko mbuur mu yàgg mooy loolu mais xanaa dem nga ba dabante yenn gars yi lu si mel ni ay Sélémélé ñoom paajaam mm-hmm. gars xanaa dabante nga ak ñoom waaw gars yooyu yëpp mbëkkante nañ mbëkkante nañu waaw xam nga làmba moom man dama ñëwul ku yéeg poids di konde poids lourd gaaw yëpp. man ma déggee onge dafa ni onge rampé si làmb ay poussière raw gàddu yooyu noonu dafa ñëw rek tout droit waaw man moom am nga poussière moom wala lii li ma si jaar barewul la jifir def def naa fa poussière jël ko. Mhm. après si laa ñëw nag yéeg quoi sookoon de nekk naa fa. Mhm. mais fa nekkee raw gaadu laaloon def. Mhm. ñane kii bu fi ñëwatee du bëre raw gaadu. ma waaw ma dem nag. bi ma fa démarrer ma fekk fa poids lourd bi ma duggee si poids lourd bi di baako ña ngi naan kii dafa sob mhm. ba noonu laa jëlee làmba ji ma Tamsir bu leeraan mhm. loolu daje woon final quoi ma daan ko. ñaari nag lañ tegoon sax jour boobu mbulum la woon. Mhm. dëgg loolu am na solo mais mais mais mais tey jii bu ñu gisee si catégorie eh, euh, Ongué Ndiaye dafa mélange bëri naa génération bëri naa ñu ko mag. bëre instant yi mu ngi bëri ak li nga xam ne ñooy rakkam. waaw noonu la làmb noonu la man ñoom Mamadi Ndiaye gars yi yëpp bëri ñoom Sey Seykous juuf mhm. say Ousmane gaa yi bëri naa ñoom. Mhm. waaw. boo daan daje bëggante rek man moom gars ñu si bari daan naa leen. Mhm. mbër yi nekk fii yëpp si Sénégal. ñu si bari daan naa leen. Mamadi laay moom benn yoon la ñu bëre. te boobu arbitre moo ko yaaxa. man maa maa ko topp di bëre bëre bi yëpp arbitre maama di téye sama loxo bi nar ko dama ma signalé arbitre bi arbitre bi loolu ma joxe avertissement supporters yi yëpp di aalu di saaga waaw après arbitre waaw benn yoon moo la ñu mosa après attaque attaque la ma génne waaw te loolu li avertissement boobu laa am de bi mu téye sama loxo bi nar ko dama avertissement boobu Dakar la woon waaw hmm. à part bu ñu ñëwee Seeku Diouf bu sum mhm. Seeku Diouf bu sum moom bëri na nu ma gis bëri nañu trois fois hmm. waaw dakaar la ñu jëkk daje ñu téxewu ñu téxewu après ñu jox ko jox ko jéele bi quoi par attaque ñu daje laalam njagañaaw ma daan ko nu daje waat final jour boobu sax jéela amul wóor na yàlla man maa temps bi presque lii si desoon sax barewul gars yi jox ma jéele bi quoi maa moom presque maa ko doon attaqué après si la am occasion dama jeekoo rek wër ma ndoo ma bàyyi ma mm. waaw billaahi mm. su ma grand la nag waaw dañuy loon déggante sax waaw ñu jokko jéele bi ak lam Sénégal mu lekk suñu ginaar yëpp maa ngi koy ziare borom sum ndaanaan lu mag ñi <laughs> mooy loolu mais euh, kii nu mu tëddee Cheikh Ousmane bu caajaay nag waaw Cheikh Ousmane tamit su ma la de waaw moom béré nañu benn yoon ma daan ko quoi hmm. waaw béré nañu benn yoon ma daan ko hmm. waaw am na boo xam te ne ñoo nekkoon Thiès sax équipe nationale bi hmm. jour boobu man maa waroon a bëri quoi après ma xam puis père en brassard nañu dem an basket yi fekk entraînement yi jeex nañu bi ñuy basket noonu ma tëb di saani bal bi mu tamponné ma ma daanu sama sibi bi tourné ba loolu moo ma tere woon a bëri quoi mhm. instant boobu <laughs> ba ma laan dem toilette sax assurance moo ma laan boot billaahi ay ne cat moo gaaw mhm. te suma garant bi bala andi woon na ma ma bagage yi lamba yi sax mhm. ay jour boobu yaram daw na waaye ma lu war a am daal mooy am quoi waaw moom tamit bii mu jógee bii mu joge fële bi mu jógee bëri ji waaw ñëw nag tamit jox na ma xaalis daal waaw jox na ma xaalis waaw ma ne ko lii moom lu waroon a am la rek amul problème. am na solo loolooy ànd bu ni mbër yi bu géew bi jotee ñoom ñooy dalante bu géew bi jeexee tamit mooy loolu mais eh, mais bu moom da da ngeen laala ngeen à part foofu kan si bukki ndangaan non moom daje wunu rek waaw daje wunu fekk na doonu làmba yoon mm-hmm. waaye moom daje ma lay wax bi may béré seeku jub noonu mm-hmm. boo noonu am na kooku génne attaque mm-hmm. waaye kooku man maa ko daanoon quoi waaw waaye béréw ñu nag waaw mais tey jii si sa palmarès boo ma doon ñëwalaat si si Dakar tey ay Adrien Senghor wala ay comme lamb yi nga xam moom lañ fa daan organiser lu si mel ni ay Ndefleng wala jamono yi ngay ñëw Ndefleng amatul ak yooyu noonu yooyu noonu boo ma si doon wax yan catégorie daraapo nga si jël. waaw foofu moom Dakar moom wax dëgg jëluma fa drapeau quoi jëluma fa drapeau parce que Dakar li ma fa bëri moom barayul adré xaw ma fi te Adrien Senghor sax benn yoon laa fa mos a bëri yi xaw ma ko sax mosuma fa dem sax. waaw Ibamar daal laa laan bëre waaw te Ibamar am na boo xamante ni rëg-rëg bii ko Franc daan final boobu maa seesoon naa maa seeku Diouf noo loon bëre quart de finale quoi mu génne ma attaque waaw. Dakar moom lamba yu mag yi moom ay yoon yoon moom damay dem ba six demi demi final quart de waaw waaye mosuma fa finalu moom wax dëgg li ma nag bëreewul. Mhm. lu waral euh, raar bi euh, bëri ñàkk bëri Dakar bi. waaw Dakar xam nga rek instant boo Dakar damay boo boo demee gars yi poids lourd lañ may yóbbu te léegi xam nga béréb Sénégal lan moo ko yaa léegi gars yi dañuy entraînement rek rëy di puusante waa CNG ñoo war a dindi loolu tey jii mbër buy puus nit kii puusaate moom la ñu war a jox avertissement loolu triché la loolu moo tax léegi gars yi dañuy naan seeni doom di puusante ku si bugg puusante war a dem dëkki Sinoa yi mu dem jaayante ji loolu bëri nag loo moo tax amatul Sénégal waaw tey ji da ngay daje koo xam te ne yaa ko ëpp doole fuuf nga war ko téye daan ko nga di ko puus xam nga loolu moo yaax làmba ji loolu moo taxoon nag après da ngay dem da ngay soona rek da ngay dem béré béré bu tas nga daje benn ponkal mu génne la attaque nga toog nga mujjee obligé nga doo demati Dakar loolu la rek moo tax ñu di fa raar. dégg naa nag Ongué Ndiaye ku bari nag la somon nga paru sali yëpp nag toj na ko <laughs> bu ma la ñëwal si loolu waaw nag moom wax dëgg yàlla moom nag lii ma si jël moom nag bari na trop sant yàlla quoi waaye xam nga nun lébu yi nii mhm. mënuñu yor nag mhm. waaw boo jëlee nag ñi da nga koy yar bu mu baax rek après nga jaay ko waaye suukur moom max suma mag yi yoroon nañ fa nag mhm. ba nag yi di am doom waaw waaye xam nga rek jël yenn saa yi boo dénkaane xam nga rek yenn saa yi ñu woola ne nag wi dee na woon bii ma soxna ji sëy sëy nag ma mujjee jaay yëpp quoi waaye nag moom wax dëgg yàlla li ma si jël moom bari na trop. fan nag est que du ñangal ñangal la yaakaar naa de. Mm. Mm-hmm. Mm. ñangal laa ko jëkk a jële ci mm. ce que du Adidas sax bu ma juumul. Adidas ba Ablaye bu Mbuur. bu ma juumul daal si moom laa ko jëkk a jële de. waaw. ba Ablaye moom ñaata yoon ngeen bëri daal. yoon. ñaari yoon waaw. Ah. ñaari maa ko à part Baaba Laay ak Mbaye Thiane ak Moñ ko kan nga laalanteel ak Mbour. kan nga laalanteel Mbour. ah Mbour ñu nga fa bëri bëri na de génération bi ñoom sama waa ji seyaaka tamit bëri nañ de. Hmm. bëri nañ ma gis quatre fois koñ. Hmm. waaw. quatre fois ñu mën demee. ko ndax kooku suma doomi ndey la quoi <laughs> nañ bàyyi noonu rek. Ah, moo gën a ŋaamu sur terre boo ko laajoon moom day wax de <laughs> émission la rek nañ wax rek faalu ma ko éleveur bu mag bi <laughs> léegi ab éleveur la de. dëgg la waaw suma waa ji moom moom dama siy woo sax di ma wax mu dugal ma si quoi. Mm. waaw su ma waay la ko ku mu jigee ku nekk moom moom lu mu munti wax ak yow éleveur rek éleveur bi la loolu la de waaw moom moom bëri bëri nañu quatre fois quoi. Mm. waaye nañ bàyyi noonu. mu jàll. Mm-hmm. sa waay la daal waaw su ma la ko waaw. Ah. Mm-hmm. Pàccam la mos ngeen laal. Pàccam tamit mosuñu laala de waaye ànd nañ drapeau chef de l'état moo ñu doon bëril poids lourd quoi. Mm. waaw boobu maa ko jëloon sax. waaw maa jëloon léger bi. maa jëloon léger bi waaw. Mm. Mm-hmm. mais à part tey jii si diwaanu Mbour bi arrondissement Fimela bi boo ma ci doon waxal loo fa def. waaw man nag côté Sokone nag laa laa gën a. yow daal waaw côté boobu lañ ma gën a ràññee waaw zone boobu moom amul la mu fa deful wax dëgg yàlla. Mm. waaw. Sokone yan dëkk ak yan dëkk. waay Sokone foo rek ay Ndorong Yerwaago zone boobu yëpp. lan loon dem waale ji fu nekk ko mbulum. yëpp fu làmba am rek foofu laa dama fa toogoon. waaw dama fa toogoon wax suma mag bi. li mm. campagne bi rek quoi. li campagne bi waaw li ñu koy def ay trois mois koñ. Mm. waaw di dem bëri ji hmm. mais tey Ongué bu ñu doon wax tey jii nga dem ba benn instant nga ñëwaat wàcc si poids léger bi ba muy ñëwaat si làmb ngeeñeen loo may wax. waaw làmb ngeeñeen ji moom làmb jooju nee na trop. Hmm. te làmb ji wax dëgg bi ma fay ñëw fekk fan yooyu yëpp dama feebar. Hmm. après kii may Ongué da ngaa feebar. waaw billaay walaay ah Ongué ngeeñeen da ngaa feebaroon. ah gisoo dama loon wàccu de si làmb ji. billaay bi may bëree petit sele noonu dama bëree moom ba pare di wàccu. amaat combat tamit ñëw di wàccu wóor na yàlla. Mm. waaye xam nga nit moom boo man soman laay toog jël sama temps entraînement kese moo fa yóbbu dama doon entraînement comme dof. Mm-hmm. waaw après nag feebar naa si làmb ji nag waaye ma maa lu mu bon bon maa ngi manipuler mm-hmm. yoon bon xam nga lese naa bu yàgg. Mm-hmm. waaw waaye après boo yaram it tàngee rek muy loolu quoi. mu daal di bàyyi waaw. waaw. nga ñëw tey boo ma doon ñëwalaat si combat yi kan ak kan nga fa daan. waaw mam mamu zi zilaan day maa ko daan ordinateur bu sali yeneen gars yi nag xaw ma de. waaw ñoo daal laa si jàpp quoi. ñoo si jàpp. waaw. ak kan. ak jegem jegem. waaw jegem jegem. ak petit sele. waaw sele waaw. final ak gàncax faamu ko waaw. waaw moom mii xam na ko bañ ma ko doon rafet <laughs> waaw mais <laughs> damay fàtte ndax bi ma paree def naa spécial Ongué Ndiaye mais damay fàtte xam nga quand mooy loolu mais mais tey jii bu ñu bu ñu ñëwee keroog nga rangale ay xale kese yoo xam ne nii même génération la booy xool bi ñëwee si lamb yàggul nga ñëw si làmb ji magul di magu par benn benn ban combat moo la gën a mitti foofu noonu moo moo mitti woon si jour boobu nag ban combat si moom si gën a sentir ni man mii bëri naa waaw xanaa marque yi njëgëm njëgëm. waaw. Hmm. maa njëgëm fekkee kooku dafa mujjee doon bës sama loxo yi quoi. Hmm. di bës sama loxo yi ma ne ko lii làmb la kese. Hmm. fox la. tàggusaan moo nu boole rek boo ma gaañee après dañuy daje nga ruus affaire yooyu waa terewul. a noonu laa nekk di négocier nag ba daan ko quoi. boobu daal moo si métti woon. waaw boobu métti na de wax dëgg euh, moom dama ko dama ko jël. jël bi mu wër ma ndomba waaw loolu moom ci dajuma fa coono après bi ma wëree ndomba nag tenir naa nag def na bu soono nag pour ma rëcc mënu ma rëcc quoi mu daan ma. mu daan waaw. mais bu ñu ñëwaat sa combat bi Gandia Fama Dakar loo ma ci wax. waaw Dakar xanaa daan ko kese laay de. Hmm. waaw maa ko daan de. <laughs> Pablo nangu leen nangu leen de fii ngeen di commentaire yi ak galas jaare naan mu ko daanee waaye boo leen weddi mooy génne vidéo bi weddi leen rek mooy génne naa vidéo bi bi maa ngi ko denc ba léegi nag maa ngi ko denc ba léegi vidéo bi maa ngi ko denc ba léegi mais keroog lu tax bon bindoo ko. waaw fees xam nga tamit booy dem làmba tamit luye oto. Mm-hmm. wala affaire yooyu après doo mën a génne xaalis quoi. instant boobu fekk damay soog a wàcce quoi loolu moo tax yor na woon xaalis loolu moo tax bindu nu recours. bindu recours waaw après dem naa dem naa. mais am na yoo xam ne tey jii nga toll fenn si làmb. Mhm. da jaral nga sacrifier sa bopp. Mhm. ndax tey nga xam ne kii nii leer nga ne da kaa daan. Mhm. mais tey ñun comme ñun dama koy wax exemple xam nga léeg-léeg yu bëri ni attaqué yu mel noonu. man ak lu ma la xam-xam ak lu ma la jege jege nga daanu ma koy gis di si teg sama bët bi fii dawoo ñëw si man. ni ma nangam wala nga dem si table ji rek réclamer bañ ni dama indi vidéo bi du tax man la kaay da ngaa daan mais vidéo bi man maa ngi ko yor ba tey ni eh, Ongué Ndiaye dafa daan gàncax faama jël bu leer naañ maa ngi ko yor ba tey jii taw boo leen koy weddi may dugal bi <laughs> dëgg la dafa leer ndeng mhm. dem naa si taabul ji tamit mhm. noonu après ñoom gàncax faama tamit bii muy béere waa tax kii dib koor mhm. après dañu ne comme dib koor am naa moom tamit daan na gàncax faama yi bañ après ñoom mu béere final bi tamit ñu moom la ñu joxoon daan waaye après dañ ko mujjee delloo Abu Asaf ñeneen moom daañ ko daan nañ ko ñaari yoon am nga rek Sénégal moom muy loolu. Mhm. keroog moom ñoo ma xaañ moom. keroog moom lamb ji moom daa jaxasoo moom est ce que waa ji ngeen woon arbitre sax la jour boobu nag da gàncax da nga seetal de ndax sa combat yëpp nag Mathia moo ko arbitre damaa yaakaar da ngaa ngeen boowaale woon Mathia <laughs> laay laal yoon yaay wax lu ne billaay walaay grand ma ca tey mu rey ma de mais làmb la rek ba tey rek mooy loolu mais keroog bi nga ñëwee bi nga ñibbin am nga loolu naqari de waaw am naa lu ma métti trop wax dëgg yàlla moom am naa lu ma métti de somoon laa defaat tout droit mm-hmm. waaw am nga rek man foofu laay faral di toog quoi yenn saa yi bu suma gars yi yëpp bu ñu fi nekkul après si laay dem sonn waaye bu fi gars yi nekkee moom xam nga rek mbër moom yenn saa yi nga toog fii bu la wul nga laaxatu ji feneen liggéey quoi loola bu fi booy nekkul nag loolu moo tax yenn saa yi ma daw mm-hmm. dem waaye Somone moom foo sama dëkk la mm-hmm. yàgg naa fa torop torop torop bi ma carrière moom jàppale na ma si torop torop torop torop wax dëgg yàlla mm-hmm. waaw waa Somone ñëpp maa ngi leen di gërëm ñëpp bu ma limee rek jom surtout ma Moodu moom mënuma ko bañ lim quoi a Karim waaw ñooñu moom ak Babacar mi toog tamit Baye Diallo ñooñu moom suma doomi ndey lañu dañuy jàpp si ma lépp lépp lépp waaw sûrement Modou tamit ak Karim mm-hmm. Mbaye Guissé tamit mm-hmm. Tiigar tamit suma doomi ndey la Abdou Faye kooku moom du ma ko wax dara quoi yàlla na ko yàlla jàppale rek li si kanam raw li bët quoi mm-hmm. loolu am solo mais tamit bu ñëwaatee sa digganteeg euh, euh, Fara Ndianda keroog bi ngeen di dajee Mbodiène te xam naa ne yàgg ngeen a ndax même génération waaw waaw Fara la waaw keroog moom Mbodiène moom bëri nañu ñu bu rëy waaw bëri bu te dama ko xam quoi dañoo xamante ne moo tax. Mm-hmm. daanu mos a daje campement final. mu daan ma quoi man a kii moom li mo daane woon bu ñu dajee du ma ko daane waat loolu moo tax jéem na ko bu soona mm-hmm. pare ba mujjee ko mujjee ko daan mm-hmm. bi rek foofu ngeen dajewaat. waaw foofu rek ñaari yoon rek lañu ñu bëri. ñaari mm. mais mais tey jii booy xool euh, tey euh, poids lourd yi tey yow ñoom. tey boo ma si doon ñëwalaat mm-hmm. yaa poids lourds yi nga xam ne ñoo fi nekk instant yi mm-hmm. am nañu si bari laalante ngeen donte man xaw ma leen boo ma loon wax mm-hmm. ñen nga si laalante loo may wax. non poids lourds Doudou Sané moom bëri bëri nañu benn yoon quoi. mu daan ma waaw waaye jour boobu bi ñu bee moom am na ñaari avertissement. waaw après si la ma sàcc jël ma nag. bi may tourné nag sama bopp bi laal. waaw jour boobu. dama loon wax daal vidéo bi forcément ma seetaan nga ma soog a nangu ne Dour Sané dama daan mhm. après bi ma ko seetaanee la ma soog a comprendre sama bopp bi moo laal nag waaye moom moo amoon ñaari avertissement mhm. waaw après moom mujjee daan ko waaw du boo dafa jaar si kaw ma di ko piris nag mhm. sama bopp laal waaw nag kan nga dajalaat si poids lourd waaw ah, poids lourd moo tey poids lourd nga mais tey si taay si gabar yi mm. <laughs> ay Liu Thior numéro 2 ñooñu ñëpp laa ngi waaw Liu Thior numéro 2 moom bëri nañ ñaari yoon waaw ku nekk daan na sa morom quoi. Mm. waaw mm. noonu la demee. à part ñoom mu dalante waat ak keneen. waaw gars yi moom ñu ñëw dal poids lourd ñi ma si dalante bëri de. Mm. waaw ay grand bañik ñoom gaskel jàmme fii. waaw gaskel moom tamit bëri nañu benn yoon. jour boobu tamit bëri nañu. moom moo amoon ñaari avertissement après su ma grand bi ñëw bala. Mm-hmm. mu ne ma taxawal. comme kii am na ñaari évidemment dama taxaw rek mu feega ma fa dóor ma plaqué <laughs> waaw xam nga man manuma loolu bu man bu may bëree moom damay attaqué rek waaw su boobu rek bu ma juumul sax est du ma Yékini doo yi bu mënu génne daal mm. bu ma juumul daal waaw waaye man moom ma bëri si kawam ba mu am ñaari avertissement mm-hmm. waaw après si grand bi ñëw na mu ne comme kii am na ñaari résultat jéem a la sóoraale temps nag si la ñëw nag forcément quoi daan ma daal day mhm. boo si gazon bi la woon sax. gazon bi waaw Iba waaw gazon beneen terrain bu mag bi terrain bi. Mhm, loolu am na solo tarkaal la macha allah mais bu ma doon wax ren ji ñaari drapeau nga am. ren ji drapeau rapport yi ba man la mu ñàkk këlkin sax man xam nga rek nun mbëri moom dañu dul jàpp doy jàpp waaye dégg naa zone zone trois bi yaa ko raatale zone trois ñaari nag yaa ñetti nag yi am njagañaaw ren yaa ko jël waaw njagañaaw njagañaaw moom wax dëgg moom li ma fa li fa jël si nag bari na de foofu njagañaaw mel ni yaay borom waaw njagañaaw moom moom li fa jël si lamba du jeex du xaaj moom waaw waaye saison bii nag benn yoon laa fa bëre nag mm. waaw saison bi benn nag mm. du jeex njagañaaw daal yaakaar naa bu ma juumul benn yoon laa fa mos a daanu te zoo moo ma daanoon quoi. waaw fekkee xaw ma xaw ma ko sax jour boobu bi ñu dem jour boobu dañuy yéegoon sareet. sareet mhm. bi bi ñuy dem ba si yoon bi bricole bi lii bi garde suuf gi daga ñu daanu. ñun mhm. ñëpp ax ah, nu saagi làmba yi am na ñu nekkoon foofu ñeneen ñi dañuy dem làmba nii mën nañu wooñu quoi mhm. <laughs> après ñu dem sawaay daan ma quoi. moom la daal final demi final. Euh, fii la woon euh, ma gis dëggin ngeeñ bi naka la tuddaati sax mbalaxaat. mbalaxaat waaw mbalaxaat waaw mbalaxaat la ma daane woon foofu. bi ma daanee nag après si beneen lamba ba dama dugg si lamba bi rek. bi may dugg si bunde bi rek ña di ma yuuxu zoo ngi fi zoo ngi fi. Mhm. li maa def sax defuma ko dama jubal si zoo téye si loxaam ma ne nu dem gars yi boole nu. Mhm. gars yi boole ñu nag après ñu daje demi final ma daan ko. nga daan waaw. woon leen da ngay fay noonu. waay forcé. <laughs> mbaa du lépp too fay. waaw forcé koñ. après ngeen tamit ñaar yooyu daal la ma xam ne la ma dugg a njëga ñaaw te génnewu ma drapeau benn bi ngañ laa may final beneen bi zo moo ma daanoon waaye yii si des yëpp njëga ñaaw moom saa bu ma fa duggee moom. Mm-hmm. damay jël poids lourd bi. loo seq bay mbay mayante moom. waaw bi mu laan dem njëga ñaaw ñoomu. instant fekk moom mu ngi def ay tànk tànk. man may def poids bu ma ñëwee si làmba ji chaque jour ñooy ànd chaque jour ñooy ànd instant boobu nag fekk zoo da ko sonaloon nag <laughs> am na woon de ñu ngi moo zoo mu xaw a am problème nii après max moom ñuy ànd di wax ma ne lii béré la rek yow gune gu ndaw nga affaire yo mu ne moom nii affaire yo ma ne ko amul danger après nag noonu ni laan ànde noonu jékki fan sa këlëbam bi mu dugal ma si waaw loolu nag moo tax man nag ma dem nag ba mënuma béré moom quoi waaw mooy fan sa këram bi dama si vocal chaque jour maa ngi si moom si boppam moo si dugal mhm. waaw après bi ñu dajee nag ñu ñaanante nag gars yi ma àndaloon sax jour boobu ñu ngi loon bañ nekk yi moom mu ngi di da doon compétir yaa ngi soog a ñëw mhm. xam nga rek yéenay boo ko seexoon nit rek waaw mhm. après ma bàyyi ko quoi. loolu am la. kamoon kamoon ah kamoon sama doomi ndey la. Mm. kooku moom yaaga nañu moom. Mm. waaw depuis somon moom daan na ñëw fii sax di ma seetse mm-hmm. man maa ko demul seetse ba léegi waaye dem naa këram ko waaye moom ta ma woon a jóg ko moom yaaga nañu torop mm-hmm. sama tur sax la daan bindu wax yàlla waaw mm-hmm. man doomi ndey la la billaahi nga seetaan muy bëri waaw daan naa ko seetaan mu bëri koñ mënoon na waaw sa waay mbër kaamil la woon koñ ah. waaw saxoon na mbër ah, a <laughs> sa mbër waaye na mbër de seetaan naa ko ay yoon yoon koñ champion la de eh. billaahi waaw noonu la xam nga rek affaire yi moom te moom da si xawoon a blessé nag si làmba loolu moo gën a doole tax mu bàyyi nag parce que gaañu woon quoi si loos. Mm-hmm. waaw xam naa moo ko gën a tax mu teel a bàyyi quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg boo gisee làmb ak tolluwaayam beeg xaalis bi bari yokk ak jamono yi ngeen doon bari xam ne boobu xaalis bi bariwul woon. bi ngeen nekk fi di rayante ay ay booy xool ay mise de cent mille ak ay benn nagat yooyu noonu lan lan ngay wax. waaw dëgg loo moom am na moom instant bi ñu si gën a nekk moom fekk làmb moom tegi baaxuñu li ma jële jël si làmba ba fekkoon ne heure bii la woon bon heure bii moom nu kër fii tabax naa ko étage bu yàgg waaw waaye nag àdduna moom noonu la quoi dara boo si nekkee day gën a avancé rek waaw génération bi dañuy fekkal yi ñeneen tamit fekkal li waaye làmba daal yàlla na gën a doon jëm kanam rek waaw gars yi sérieux nag muy loolu mais tey boo nekkee tey jii tamit ngay gis ay ndaayaan dëkk làmb la te chaque année da ngay gis révélation yi fii nekk mhm. saa yu ñuy wax si làmb ñu mhm. tuddul leen loolu ban yëg-yëg la lay kontaan rek kontaan rek booy max ñoom ñooy nekk tout le temps tout le temps du ñuy réeroo si daara waaw booy fii nii ñoom njaay njaay waxi noppi kooku moom suma lépp la waaw du ñu réeroo si dara waaw Abdou Mbaye tamit onge onge junior tamit ñooñu du ñu réeroo si dara dara xam nga loolu dafa baax tey boo nekkee si dëkk nun kenn iñaanewul kenn sa moroom tey jii dañu yéenante jaama man ñoom mag laa ña jox ma cër bi yëpp man tamit ma deeloo ña ko lii ma ñu yéene man tamit moom la ñu yéene ñoom buuju tamit waxi noppi kam kii ànd nañu campement dix nag lañu tegoon maax kii nuy bëre demi-finale Aldo ma daan Aldo jël bu set wicc arbitre jox ko daan mag waar CNG oo ma ñene ma fi mu toll nii nag da ngay ñaaka quoi parce que arbitre dafa jiw kii jour woo dafa jooyee jooy ba du jaaw dafa jooy ba man maa ko doon tëyee boo yi ma àndaloon ne dañuy toj làmba ji mën a garaawul te ñëpp arbitre CNG si boppam xam na man maa daan waa day ne arbitre moo juum da ngay ñàkk. ah jamono yi recours a ah fekk recours am na koñ. fekk recours am na koñ. <laughs> fekk ah, recours yëpp waa Mbour a defoon. waaw dañoo ah, fàtte ni yéen si Petite Côte bi ngeen dëkk xanaa. ah si Petite Côte ah. laa ñaake de. moom mooy génn dem. Aldo daan lay daan final. Ah. amiin Aldo meen. Aldo waaw. Hmm. quart finale la lu bëri daan boo te boo daan boo demi finale boo ko daanee boo lii boo demee quart finale rek am nga nag ah. demi finale bi. am nga benn nag waaw dix nag la woon. dix nag la waaw noonu lañ ma ko xàññee de. noonu la ko nag. comme man bu ma ko daanoon. Ah. quart finale la lu bëri bu ma ko daanoon nag ba dem demi finale après damay am nag noonu la demee te noonu moom làmb moom wala lu nekk rek daj nañ si noonu bu nu amee. dañuy xam ne am nañu bu ñu amul tamit ñu xam ne am nañu làmb duñ ko yaaxal parce que nuñ bu ñu laan dem man bu may bu may dem làmb nii suma grand bi suñu taw bi fii Pam Ndiaye la la may jëkk a wax li ñu teg moomoo ko dangay dem wuuti sa morom dem wuuti lu la si yàlla jox rek jël ko waaw suma mag yi tamit maa leen di gërëm Pam Ndiaye maa ngi am ma tamit ñoom wës Moussa Ndiaye ñooñu tamit ñoom ñoo ma jàngal bi rek waa waaw wës ak Moussa Ndiaye ñoom ñoo ma jàngal. bala moom damay bi mooy Moussa Ndiaye mooy bala waaw. Hmm. moom mu ngi si biir sax. mu ngi si biir Ibou demal demal taabu ko bu njëkk waaw moom moo ma jàngal béres ñoom moo wës. Hmm. waaw. Hmm. noonu la demee. dëgg loolu am na solo parcours bi rafet na macha allah mais tey boo xam ni bu la mais tey ndax déwén si lañ leen lañ mën a xaar si poids léger bi wala gars yi dañu ngay gis nga démarrer si poids lourd. wala da nga noggatu yi ba tey. waaw man moom làmba moom aw ma si poids quoi fi mu nii. yenn saa yi ma yéeg poids lourd yenn saa yi ma wàcce. Hmm. waaw maa ngi ñaar yoo daal. mais daa mel ni yow Sélé ne daa mel ni daal nag yi daal moo leen gën a neex daa mel ni. waaw du loo sax xam nga rek làmba moom. muy lool jël nag bi gën a xaalis bi. déedéet xaalis bi sax nag bi yëpp ñoo em de. Hmm. waaw waaye déwén daal bu soobee yàlla. Hmm. ñu ngi ñaan yàlla daal ñu ngi préparé nii di wàcc di ñaan yàlla nu yàlla suturaal daal may nu wér mm-hmm. ñu entraînement li ñu war a entraînement mm-hmm. di tamit ñoom nit mbookaam ñoom ñoo war a dimbali mm-hmm. waaw tey jii Modou du bëre Modou daan mbedd mi yëpp fees ñuy tëbal di yuux te am nañu ñoo xam te ñoom noonu lañ ñu war a defal ñoom ñoo nu war a taxaw ñooy suñu doole waaw ña taxawuñu si fépp waaw tey jii weenu jàppale nuñ dañuy dem waaw loolu daal mooy wax ji si dëkk bi daal dëkk bi waa dëkk bi tey ji burul ñoom nun mën noo eega fii ñoom nag ñoonu war a dooleel fi mu toll nii dëkk bi nag fi mu toll nii promoteur yi tamit nañu gëstu nit ñi parce que nun dañu amoon benn handicap quoi suñu waa dëkk dañu laan dem campagne nekk jifir boo amee combat pour nga jële fa oto day metti waaye ainsi dëkk bi kenn dematul campagne waaw te booy ña ngi fi booy nag waa yi tamit ñëw tëgg a booy. mooy tëgg euh, euh, yi. jàpp mm-hmm. ngay wax tout droit rek ni ko capitaine gaal yi. Oh. bu ko defee eh, gars yi jënd ticket waaw promoteur yi jag sa tamit ñëpp bàyyi ñoom promoteur yëpp. waaw gars yi ndayaan gaal yaa ngi si tefes gi. Mm-hmm. gars yëpp ña ngi fi kenn dematul fenn ku fi am komba waa dëkk bi dinañ génne. bu lay wàllu billet bi dinañ ko jënd bu lay oto yi tamit dinañ si jàppale waa promoteur yi tëgg booy moom du fi jeex du fi xaaj yu mën a bëre kese ñoo fi nekk waaye dañu amul jàppale waaw loolu kese mooy suñu cat nañu nu gestu waa dëkk bi ñu jàppale hmm. am na solo mais hmm. bu ñuy ñëwaat si benn affaire rek balaa ñoo tëj hmm. mooy lamb bi nga xam ne Yékini tëgg na ko fi ren muy ndaa si ndaayaan lamb ji génn dëkk bi loolu lu mu la def waa lamb la rek neexuma neexuma moom waaw waaye xam nga lan moo tax xam nga tey nii da nga am waajur fii ay temps dañu fi laan dama fi bëre mhm. waaw waaye làmba yi dafi laan am coow mhm. wala sama mag yi bëre sama mag yi am na moom dane mu dimle mhm. ñoo fi demoon final làmba ji am am coow quoi jotul eega jotuñu bëri sax ña dimle nag wi waaw affaire yoo nag ñoo taxoon nag maire bi ne man bu fi mu ne man bu ma fi bëree ay ko ay temps dañ ma laan tëgal combat fii fay ma cent maire bi ne kii du bëre nañ ko jox suma grand bi wës mu bëre ko fekk waa kaw kañ ñoo ko bëggoon tëgg waa teeka mm-hmm. waaw mu ne man moom ba mu fi bëre kaadu yow nag la may doxe ba tey jii waaw loolu moo tax mm-hmm, waaw ñu ngi lay jaajëfal di kontaane si mm-hmm. recevoir bi yëpp euh, dina rek saison moom tëj na ba pare waajjoon na waaw waajjoon na ñu ngi si waajtaayu de waaw ainsi eh, moom ñu ngi dem géej bu ñu teeree tamit ñu dem meñcee ji daal ndànk-ndànk di waajal si côté bépp waaw mm-hmm. ah, ànd ak sumay rakk daal mm-hmm. ñoom njaay njaay ñoom buuju ñoom ñëpp ñu ngi si kawam daal ainsi waaw ak kii yaay xadi tamit mm-hmm. waaw moom tout péré fii la dëkk quoi bu ñu jaalee fii tamit yow waxuñu ko day demee neneen moom tamit ainsi moom dafa amewoon tànk quoi waaye yàlla def na tànk bi tane na ba def na retour laa mi ndaan ji passé nii moo finaalu ñaari poids yëpp waaw beneen moo njaay njaay beneen bi bu ñaa ñàkk waaye ñu ngi koy ñaanal tamit tànk boobu wéer complètement du ko sentirati fenn waaw parce que manqué woon nañu quoi si wàllu contact bi lépp mhm. waaw noonu la jërëjëf mhm. merci. jërëjëf yéen ko gisandoo ba tey rek la grand champion Ongué Ndiaye lañ toogaloon mu nekk ndaanaan def lu nekk tamit si làmb donte ñun maîtriser wuñ ko bu baax ndax li ma leen di wax chaque jour rek laal yoon yàggul seetaan làmb doomu Petite Côte la nag mais yàggul seetaan làmb ñii bi ñuy tëj dëgg dëgg dëgg dama leen koy wax ay Ongué Ndiaye ay Séléméné surtout maa nga nekk jigéen doo teel a génn di dem di seetaani làmb du ma leen seetaan tey wax si njaajaay mii moo may gën a yomb ak buuju ka wax si onge jaay xam nga muy sele mene keneen keneen wax si Toubacouta wala Petit Sélé moom may gën a yomb ndax tey boo ma nee Petit Sélé man la keroog la le le dix mois ba muy bëree eh, stade Caroline Faye bii maa nga fa woon toog man xam nga ni kooku bi muy kon kooku mën naa wax si moom mais bu ma bëggee wax si sele day métti ci man il faut ma gëstu dooga mën a xam en cent pour cent ñoom ñoom wala gars yi topp ko si commentaire yi naan ba ma seetaanee Ongué Ndiaye fii ak fii ba ma seetaanee diw fii ak fii mais ñii laa gën a maîtriser ñoom Abdou Mbaye ñii Ongué Junior ka ka ka Ongué Ndiaye damay jéem rek nag mhm. jéem pour motale yéen gars yi yéen a koy si commentaire yi kon rang muy abonné si biir Arène TV bësal ma foofu ma xool